sa xalaat ñu daal di ci tàbbi Covid bi fukk ak ñaar ci ay ñett ñeent sax ci ay nit ñu daal di faatu diggante démb ak tey immigration clandestine bi waaye itam wàllu inscription yi ñu daal di ubbi ci liste électorale yi euh, décret boobu njiitu réew mi daal di nag génne seen xalaat ñu jël ku ne ci ligne bi 88 628 98 98 Assane ñu jël ku jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama man ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu de nuyu waa Sénégal yëpp. ngi lay fay waa. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal aar Amérique. Hmm. aar adduna bi yëpp. Oustaz Adama. waaw. je suis désolé de le dire que ni problème immigration du jóge Sénégal je suis désolé de le dire. Hmm. le pourquoi. Hmm. diagnostiqué nañu le problème mais demuñu pour faj ko. parce que un peuple. un pays boo xam ne ki les dirigeants sont des milliardaires ils sont plus riches que les hommes d'affaires hmm. mais ce peuple là mais ces enfants dañu fa toog hmm. dañuy découragé ak lu mu de demee dañu am une crise spirituelle ak une crise économique ak une crise familiale hmm. ñett yooyu yëpp dafa daje suñu pays bi naka la fa xale yi di toogee ils n'ont plus espoir à ceux qui nous dirigent ils n'ont plus espoir à leur famille qui les pousse à aller dans la mer. Ils n'ont plus, plus espoir à l'économie. Pourquoi Parce que ni nous dirigeons ñaata yoon nga dégg ni Union européenne wala Amérique wala yeneen réew yi yónnee ay milliards ak milliards ak fan la dugg ñoom ñu ngi dawal ay 4 x yu cinquante millions cent millions les présidents yi ay euh, euh, avion wu soixante milliards cent milliards et cetera et cetera te loolu lu ñu la lu nekk ci biir bu ñu leen ko tey ngeen gàddu yéen ñëpp ñëpp mel na Macky Sall nag génn ci palais bi te loolu moo am il faut pas qu'on se voile les yeux bu ngeen bëggee seen doom yi toog comme Malaisie comme Singapour y a des pauvres là-bas hein hmm. y a des pauvres mais duñu daw mukk du fa génn te seen passeport bu leen neexee ñu ñëw Amérique wala ñu dem ñu dem Europe sans visa hmm. mais duñu fa génn parce que pourquoi dañ leen formanté dañ leen yar tàggat leen ci lan patriotisme you know yar leen lan mooy diine lan lan famille mais on a perdu tout cela à cause de nos dirigeants là nañ ko il faut pas avoir peur de la vérité parce que ñun ñëpp dañuy dee ñun ñëpp dañuy dee te kenn rek moo ñuy àtte muy. jërëjëf euh, sëñ bi biir réew mi bitim réew Assane ñu daal di jël euh, keneen 88 628 98 98 biir réew mi bitim réew 33 841 22 33 allo. allo waaw na nga waaw ñu ngi fi. ngeen ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. yal na yàlla dolli jàmm. allahumma amiin waaw. ñaan yàlla feebar bi waaw. xam ne daal xam naa ne métti na yërëm nañu docteur yi yërëm nañu président de la république ndax xam naa ne sonn na. Hmm. bu doon xalaatam pexe moo jëlee na nga ni na. waaye mbir yàlla moom bu ñëwee dañuy xam ne rek yàlla moo ko indi moom moo ko fa mën a jëlee. Hmm. docteur yi jàmbaar lañu lool ñu ngi leen di sant di leen gërëm nit ñi nag war nañu sonkat li nga xam ni moom la docteur yi santaane. Hmm. ndax bu ñu ne masque wu leen nañu masque wu. dandante leen nañu dandante leneen li ci def ñu bàyyi koog borom bi tabaaraka ko taala te nit ñi nag ñu dellu ci borom bi tabaaraka wa taala tuub ñaan yàlla yàlla jële ko ndax jàpp naa ne bu ñu manqué woon ñun ñëpp ñu daal sukku raam ci kanamu borom bi tabaaraka wa taala yàlla yàlla dina ko dina ko bu jële waaye lii ñu nekke wax ju bari tegante gi bari na te a yëpp ay mbugal la yoo xam ne nii yàlla dañ koy dañ koy natt rek ndax ay natt la rek natt rek moom dong la te natt bi yàlla moo ko teg dañ ñaan yàlla yàlla teggi ko ñuy sant président bu baax nag di ko ñaan ak yàlla yàlla may li nga xam ne moom la moom la jàppanteel pour bëgg fee jële yàlla na yàlla may ndam ba mu ba mu jógee fii jullit yëpp yàlla sawe leen mosal leen yàlla na ko fi yàlla jëlee te ñëpp mucc wér te ñëpp des di dund man de loolu lay ñaan ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba xalaan loolu rek moo fi sës moo fi sës moo fi ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi rek moo fi sës président nag jàmbaar la def na lu ne def na lu ne waaye nag bu doon pexe na dana ji waaye nag yàlla moom moo moom mooy jël ñiy dem président bu doon sagoom kenn du dee waaye nag nit ñi waxee ñu ne président moo nangam président moo nangam. ok jërëjëf euh, sëñ bi Assane bu fekkee keneen rek euh, mën na ci dugg ñu daal di koy jël ci jotaay wax sa xalaat la ju nekk jukki wàllu Covid bi ak la mu faat. ci allo allo waaw. Adama Foutoum na bonsoir. waaw bonsoir waaw. Mbaye Laye moo nekk ci buum bi. ok ñu ngi lay nuyu. di jëfal Alassane Wade. Mhm. ak góor gi génn léegi li mooy patriote. Mhm. Adama ñëpp bu ñu defoon nii rek. Mhm. mbas bi dem yoonam. góor gi génn léegi tey laa wax mu gis mais defe naa bu defoon nii keneen def nii rek mbas bi dem yoonam mais am na ñi nga xam ne bugguñu lu baax yàq rek président Macky Sall mooy seen problème te président Macky Sall ku ne xam na ni def na lu rëy ci mbas bi def na lu mu ci mën fii la taxaw ne sénégal yi jàppale naa leen ci ceeb ci ci ci mboq ci ci ci ci spaghetti ci diwliñ ci suukar ci meew ci lépp pour gars yi nga xam dañoo néew doole mën ci gis seen bopp ñuy yàq naan loolu seen ñoom lañ ko jox waa APR lañ ko jox parce que ñu xam waxeewuñu xam-xam dama bëgg gars yi ànd ak dal ku ci wax mel ni kuy xeex mel ni ñoom lañu dénk réew mi boo nekkul ci nguur amoo mbokk mu nekk ci nguur danga war a bàyyi ñu nekk ci nguur doxal. fala budda Adama chef d'état bu fi nekk danga war ci avion 60 millions fala budda ku nekk ci nguur di nga war 4-4 loolu yàllaa ko dogal lu dëgg yow moomu nekk ci DFM da nga jàng sa njàng moo la yóbbu foofu noonu mais man mi nga xamante ne mbiru yàpp ak nag xar laa mën defe naa mënu ma ñëw foofu naan damay bës ay bouton. ku nekk lii li la yàlla euh, defal loolu la ñu war a xam ñu bàyyi président Macky Sall bi ñuy joobaa jonge mënuluñ ko dara nag mënuluñ ko dara deux mille dix neuf ba léegi ñu ngi wax di mbel mbel yi mënuluñ ko dara terewul sénégalais yi falaat nañ ko ñu dëgg nañu jéem a jàppandoo xàccandoo dóorandoo dàq mbas mi mu génn réew mi parce que du Sénégal kese monde bi yëpp la ñëpp a sonn ñëpp a jaaxle la maam see waxoon rek ne lu ko lu commencé penk ba soowu ñëpp a jaaxle damay du ma noppee di ko wax ba koy wax boobu ñun ju dooguñu kon foog ñu xam loolu di ñëw ci mbiru sport bi mbiru làmb ñu ngay wax man pour man war na mën a nekk ndax bërki démb la lañu organiser coupe d'Europe du dëgg gars yi kenn ku nekk mën na dand sa morom comme ni ko gars yi promoteurs yi ni ñu ko waxee noonu lañu ko organiser ñu defee ko noonu ku nekk moytu du dëgg parce que instant bi nii bi président Macky Sall tëjee ku nekk di xataraayu ñu nekk ci internet bi naan génn leen toj leen te ñu leen koy waxal ñoo nekkaat nii di wax ñu doon wax mbas bi amul ñoo nekkaat naan mbas bi président moo ko fi indi Euh, waxtu wi daal di ñuy nag euh, dàpp jaajëfal ñëwate jégalu ci ñuy desoon ci ligne bi dig leen xibaaru guddi gi 18h xam sa ilimaan waan xibaar yi ci yaatal euh, laata boobu sud éducation jaajëfal bu baax Assane Thioune ci sottandikukaay bi mucc bi teeg jàmm biir gudd fan ak wér wér la am ak mën ak fekk tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.